dispositif bi ñu teg boo xam ni dañ ko tàmbali woon avant màggal euh, ci ay opération de sécurisation yoo xam ne dafa jàpp Touba Mbacké ba Diourbel pour waajal màggal gi ba nga xam ni képp kuy ñëw di nga fekk dëkk bi nekk ci sécurité boo xam ne dinga mën a màggal ci jàmm mën a dellu ci jàmm te opération yooyu yëpp biñ koy ñu ngi ko commencé mu depuis le 7 septembre euh, mu nekk nag

am ñoo xam ne dañoo yor cinéma euh, am ci ñoo xam ne aussi ci port de masque lañ leen jàpp takkuñu ko ndax euh, màggalu ren bi dafa am ci tax covid 19 bi pandémie bi donc police war a xoolaat taxawaayam par rapport ak loo xam ni daawul xew ci période màggal dajeeg aussi nawet donc loolu aussi daawul am ci période magal donc dafa tax suñ taxawaay ñu jëm ko xoolaat ko xool nan lañ koy adapté ci ñaari paramètres yooyu nga xam ni daawul am te yàlla dimbali nañu ci ñu def ko opération yi mucc ayib ndax dañ ci doon liggéey guddi ak bëccëg ci ay check point yoo xam ne képp kuy dugg ci dëkk bi ak di fi génn muy guddi dinañ xool lan moo nekk sa oto bala ngaa dugg dinañ xool lan moo nekk sa oto bala ngaa génn boole ñeneen ñoo xam ni ñoom tenue civile la ñuy sol di dugg ci dëkk bi di saytu ñi nga xam ni euh, dañuy def naka su dul noonu voilà loolu biñ pare nag lu mat ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn ñoom jébbal nañ leen procureur ndax ñooñu moom dañoo def ay délits yoo xam ni yoon da leen war a topp voilà donc euh, loolu laa doon loolu moo nekkoon euh, opération ñu doon def avant magal bi maa ngi doon wax léegi sëñ bi ne ko directeur général li mu waxoon ca ba ngeen gisee ca Dakar ca ministère ne la dina indi ñaari junni agent ci màggal gi ma ne ko weesu na ko sax ndax indi na ñaari junni ak juróom-ñeent fukk ak ñett donc loolu lépp pour rek mën a euh, assurer sécurité ñëpp képp ki nga xam ne da ñëw te màggal gi tax nga ñëw ñu assurer sécurité ba li nga bëgg a yow ci Sëñ Tuubaa mi nga xam da ngaa ñëw màggal si bis bi nga am ko ci mais aussi ñi nga xam ne dañoo ñëw di raas lépp ñu mañ leen a ba duñ mën a faagaagal ñooñu nga xam dañoo ñëw màggal rek tax ñoom ñu jóg maa ngi lay delloo am nuyoo bu baax ak délégation bi nga àndal te ñu mën cee tudd commissaire Sarr ak kilifaam bi mu àndal ak ñi ci des ñëpp di la sant bu baax di di la yóbbante nuyoo ci ministre intérieur Aly Ndiaye moom bi nga xam ne ci ndigalam ngeen fi ñëwee di dégg nañ kàddu yi bu baax nga ko waxee te mooy engagement bi nga xam ne jëloon ngeen ko ca réunion bi ñu doon def ci ministre de l'intérieur kon yàlla def na ngeen matal ko ba dolli ko loolu ko kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen sant leen ndax sécurité moom moo war a jiitu lépp ndax falya'budu rabba haazal bayti llazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf ku amul jàmm. ku amul sécurité doo nekk ci jàmm bala ngaa mën a am jàmm faaw sécurité am kon nag yéen ci taxaw te féete ci nit ñi nit ñi tax ngeen nekk foofu loolu kon bu demee noonu dañ koy rafetlu bu baax yow tam ñuy rafetlu sa taxawaay ndax yàlla def nga nga ñëwoon ci dëkk bi liggéey fii liggéey bu rafet su ñu def nga jóge fi ñu jàllale la feneen kon bu yàlla defee nga dem ba. gën a yëkkatikuwaat loolu dañ koy rafet bu baax a baax ndax fi nga dëkk waaye it sab liggéey bu rafet ñëpp ràññeewoo nañ ko ci dëkk bi ndax bi ñu fi ñëwee def nga fi liggéey bu rafet rafet kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa ak daraja bisu suñu borom dëgëral la loolu sa kattan ba yaakaar ji am ci yow ndax lii la dénk lu diis la ndax kuñ dégg euh, kaaraange nit ñi rawat na ci réew mi yëpp doon lu woyof ndax doo tala lekk doo tala nelaw waaye nag ndimbalu yàlla moom lu mu tàbbi rek mu woyof kon nag ñu ngi sant bu baax di leen